waaw Mamika. Mhm. jébbal nga ma lenge. jébbal naa la lépp. mën naa tàmbali. ayca doxalam ayca su ko defee kon ñu amaan mbégte teewaat fii ci plateau Petit Déj comme ni koy baaxoo di def mardi bu jot tey ñu fas yéene indi beneen thème boo xamante dañ koy waxtaanee. essentiellement mu nekk euh, dossier mbirum Boy Djiné. Mhm. l'affaire Boy Djiné bi nga xamante ne jëmale na yow mi jamono ji yëpp. alors ñu xool ay taxaw seetlu yoo xamante ni dañ ko ci war a def ay jàngat yu ci war a def mais également ay leeral yoo xamante ni euh, dinañ ko ci def euh, su ko defee kon euh, bala ñu sóobu ci waxtaan boobee sax dinañu ànd ak kenn ci ay avocat am déglu ko li nga xamante ni moom mooy extrait benn leeral bu mu wax rek campé débat bi ñu daal di indi faram-fàcce yi nga xamante ni moom moo ci war waaye balaa loolu may fàttali ne chambre criminelle am na chambre criminelle boo xamante ne tàmbale na fii Dakar depuis chambre criminelle mooy ëttu attakaay bi remplacé cour d'assises fa nga fa la ñuy ñi nga xam ne dañ leen di jiiñ crime bu ñu waxee crime mooy lépp lu jëm ci trafic de drogue bu la jàppee ak drogue bu xas ma kilo wala crime de sang moo xam meurtre la wala assassinat wala tamit yeneen mbir agression boo xamante ba ngeen ko def da doon mbooloo yor ngànnaay gaañ ki ngeen ko seqal yooyu yëpp day dugg ci xeetu crime alors démb ci altine gi na ñu war a jugé 41 dossiers dossiers yi impliqué au total 95 accusés alors euh, loolu mooy li nga xamante moom moo ci am région de Thiès également bi nga xamante ñi ngi ko doon évoqué retard bi fa amoon 17 mois mu mel ni kon am na taxawaay bu ci am ndaxte le 15 am na session également bu fa war a démarré pour maanaam ñi nga xamante ne dañu nekk ci ak loxoy yoon yëpp surtout ñi nga xamante dañu victime de longue eh seen atte seen dossier daal di féete boor loolu mooy li nga xamante ni bëggoon naa ko jàllale la deuxième chose bi nga xamante ne tamit bëggoon naa ci wax mooy par exemple euh, opération de sécurisation yi nga xam ne police nationale def nañ ko ci week bi diggante vendredi samedi dimanche euh, ci gox goxaat yi nga xamante ñoom ñoo fi nekk particulièrement région de Thiès ak région de Dakar parce que bi ñu defee loolu ba pare am na ay nit yu bëri yoo xamante ne leen teg loxo plus de 900 personnes teg nañ leen loxo ne loi bi daf euh, leen jàppee ñii wàllum raafal la parce que dañuy circuler te yoruñu pièce nationale d'identité teg la loxo woon nañ ko fii ci jotaay yële weesu am na si ñoo xamante ne leen jàpp maanaam pour défaut de permis de conduire wala non titulaire de permis de conduire maanaam am nga sa oto nga jël ko abal ko biti alors que biti yorul permis de conduire bien yow am nga loolu tamit loi bi daf koy tere koy jox sa oto na leer ne kooku yor na permis ba pare nga soog ko jox boo ko joxee te amul permis yéen ñaa ñëpp yoon day dal seen kaw loolu bokk na ci li nga xamante ne jàppee nañ ko nit ñooyu noonu comme que dafa diñ bi yàpp dañoo bëri nag day jaadu kon ñu xamal askan wi leeral leen yi nga xamante ne amaana ñu ngi koy def sax te xamuñu ne yoon mën na dal seen kaw bu loolu jàllee leneen li nga xamante ne jàppee nañ leen mooy wàllum drogue wàllum drogue moom waxtañ ci ay jotaay yu bare bare bare détention bi loi bi da koy tere usage bi loi bi da koy tere cession bi loi da koy tere trafic bi loi bi da koy tere nga yor ko te tuxoo ko sax loi bi da koy tere policier bu fekkee yow ñu bu la fuyee fekk la ak drogue nga yor ko te même tuxoo da lay interpeller yóbbu la ñu tappel la PV defeere la ni loi bi di tere détention bi nga yor ko dans détention yàlla verbe détenir noonu lay teree usage bi noonu lay teree mayante bi ak toxalante bi noonu lay tegee également trafic bi te trafic moo gën a garaaw mooy drogue bu xas ba yegg kilo chambre criminelle yóbbu jugé la fi donc loolu yëpp nekk na ay ko dañ ko war a nga xamante ne dañ leen jàpp am na ci ñoo xam ne ay soxna lañ ñu ngi leen di jàppee wàllum racolage maanaam les délits liés à la prostitution waxoon nañ ko ci ay jotaay tamit Sénégal interdirul prostitution mais daf ko encadré dafa ni képp koo xamante ne def nga bay def loolu dafa am ay matukaay yoo war a jël pour mën a aar ki nga ko seqal donc loi bi day tere racolage racolage mooy boo koy def da nga a dem toog fenn benn bërëb ku la soxla ñëw fekk la fa mais amoo droit di interpeller nit ñi ku la romb nga ne ko sama càmmiñ fii la gën a kii yooyu yooyu yëpp loi bi daf koy tere leneen lu loi bi boo koy def da ngay dem nga inscrire ci fichier ñu délivrer le carnet de santé bien que nag am na ay yenn paradoxe yi mais peut beneen jotaay dinañ ci ñëw bu baax a baax donc yooyu yëpp bokk na ci li nga xamante ni dañu interpeller nit ñi nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax pièce nationale d'identité nañ ko yor bu ñuy circuler guddi ak bëccëg parce que waxoon naa fi ne police ak gendarmerie ni leen loi bi may ñuy def rafle guddi noonu la leen may ñu koy def bëccëg donc nañ yor pièce nationale d'identité bu réeree à seconde demal nga dëkk wut certificat de perte nga téye ko parce que nit mën na ko for dem banque di def ay retraite dem yeneen def ay opération yoo xamante ni suspect la boo yorul permis de conduire boo ko yorul pièce de conduire ko parce que identifiant la a taxawaay boobu nga xamante ni police ñu koy def ak gendarmerie pour aar askan wi la sàmm li nga xamante moom suñu sécurité parce que insécurité bi dafa bëri trop wàllum sàcc yi wàllum bërki démb rek combat Ama Baldé bi bi mu jeexee ñaata nit la ñu jàpp fële nga xam central bu Géejawaay nit ñu bëri dañ leen interpellé vraiment tamit loolu war na fi jeex war na fi jóg combat de bu jeexee agression massive yi nga xam ne day am il est temps que ça cesse parce que tamit mënuñ jël agression def ko métier que lamb ji bu jeexee wala nawetaan bu jeexee wala yeneen manifestation ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci booru stade bi sax duñu am jàpp vraiment tamit côté boobu tamit état bi war na outillewaat jàppale force de sécurité yi jox leen moyen jox leen effectif yu doy ñu lutter contre l'insécurité parce que combat de lutte bu jeexee daf agression yi fu ñu la romb dañ lay agressé ñii dañuy yëg ci scooter bu ñu rombee sa téléphone këf ko bu ñu la rombee nga yor dara ñu këf ko daw ñii dañuy dugal seen loxo si biir sac di def ay leneen leneen loolu il est temps que te ñiy def loolu même bu fekkente ni rayoo nit ki nga ko seqal mën nañ la ci teg kaso giiru dund gis nañ ko tribunal bi ay nit ñu ñëw assise ay jeunes yu ndaw 18 ans 19 ans 20 ans agression même boo rayoo nit mën nañ la tëj kaso giiru dund yàgg dafay am parce que ba bañ fiy waxtaanee wàllum délit le de vol wax naa leen vol qualifié boo ko defee guddi ngeen doon mbooloo nga utiliser ngànnaay wala nga utiliser oto nga gaañ ki nga ko séqal circonstance aggravante yi boo ko dajalee cour d'assises la ñu la yóbbu wala bokk chambre criminelle donc nekk na loo xamante ne dañ ci doon introduire nii rek en attendant ñu dugg ci suñ dossier du jour muy mbirum Boy Djiné bi nga xam ne euh, balaa ñu ciy xuus dañuy ànd ak waa régie xool extrait bi déglu avocat am réaction bi mu ci def laata ñuy ñëwaat ci plateau bi pour faram fàcce yi ngi taxaw ci presse naan way Boy Djiné à gauche Boy Djiné à droite dama bëggoon leeral ne du jinne nit la am na pàpp am na yaay doomu aadama la te jullit la c'est vrai nekk na nit koo xam tamit yàlla nattu na ko ba mu ngi am yu muy def te yëpp yu muy def tamit mu ngi koy nangu ne moo koy def waaye dama bëggoon préciser rek ne du jinne du nooxóor du rab du mala doomu aadama la comme doomu aadama yi Moodu la tudd sant Fall te Jurbel la juddoo màggee fa yaroo fa am na jabar am na papa am na yaay am na ay doom. nit bu defee li ñuy def war a njëkk a def mooy ñu ñaanal ka mu bàyyi li muy def Modou fal du nit ku violent maanaam du nit koo xam te nii dafa ànd ak fitna du nit koo xam te nii dafa day ñëw di dal ci kaw nit ñi pour di leen mettital parce que jëmmam sax jàng nañ ci ne jëmmam sax permettre ko amul prédisposition yi kay permettre ba mu nekk nit ku violent wala day taxaw di gaañ nit ki te tàmmul di fen loolu moo tax enquête am day faral di yomb parce que bu ñu ko ñëwee jàng di ko di ko laaj moom day faral di collaborer avec les éléments enquêteurs loolu moo tax sax boo gendarme yi doo xool te li si kanam rawli bët di ngeen xam ni ay mbiram lépp gaaw parce que moom day reconnaître day nangu ni moo def bu deful tamit dina ne deful. nit koo xamante ni la war nañ ko war a may parce que am na lu mu jàng si biir àdduna parce que jàng nañ ni nitu daara la. kon am na li nga xam ne benn xam-xam boo xam xam-xamu iman la bu ne ci moom même bu ko jëfewul dañoo war a fexe mu jëfe ko mais waruñoo ñëw nag jot lii comme prétexte mais di ko boddi wala di ko di ko di ko génn si société bi si société bi la bokk te ñun avocat médecin même les autorités policières les autorités judiciaires même les autorités de l'administration pénitentiaire ñoom ñëpp dañoo war a ñëw taxaw nag jàngaat kaa bi ñu fexe ba kii bokkaat si ñun que li nga xam ne moo koy faral di animé mu koy faral def ñu gis ne nattu la te nañ fexe ba loolu denc moom c'est vrai nekk nit koo xam te ni saa yu ñu ko jàppee prison parfois dina def ay maninam pour génn ci ba ma déggee ñu ni jàpp nañ ko Gambie sama xel dafa gën a dal parce que ñi ko jàpp c'est des gens qui son professionnel parce que gendarme section recherche ñoo ko jàpp jàng nañ ci xibaar yi ne ki mu àndaloon Diourbel pour rëcc bañ ko jàppaatee damm nañ ay tànkam yaakaar naa le cas de Alex et Ino Sénégal gépp xam nañ ko te fii lañ ko fekk dañoo mujj faatu ci ginnaaw ay métital yoo xam te ne du nañ ko si biir kaso man en tant que avocat am maa ngi ñaan ñu defal ko visite médical ak contre visite médicale attestée par un médecin assermenté ba nga xam ne bu ñu koy présenté fii dinañ xam ne dara jotu ko ba ëllëg lu ko xew si biir kaso bi rek dinañ xam ni les autorités de l' administration pénitentiaire sont prévenues li ñu war a seet mooy lan moo tax mu évadé wu. mais ñi dee si kaso bi te amuñu woon possibilité évadé bu ñu ko amoon dañuy évadé loolu li dañ cee war a wax. moom ba muy évadé wu rëbës na nit ñi jox ñu rapport d'évasion bi est-ce que violenté wuñ ko moom dégloo guñ ko ci loolu avant ñu koy déglu évadé wu waat na te ñëpp xam nañu administration pénitentiaire benn corps bi la. est-ce que nekkul li mu doon tiit ci biir prison rëbës moo ko naroon dal ci biir Diourbel sama je donne ma langue au chat neew ma lii moo am wala nee moo am mais nañ ko déglu ba xam moom am na ay raisons yu koy wane ni moom lii moo tax mu évadé toujours est que li ma gën a naqari ci mbir mi nag. mooy jël nañ xale parce que kii nii ñu ko seexal xale la te presse bi jàng nañ ci ne 88 la judd maanaam mu ngi am ay 25 ans rek 25 ans ku ko am pour man dañoo war a fexe en sorte nga dellu ci waat ci biir société bi yenn comportement yi nga ñàkkoon ñu fexe ba nga amaat ko mooy système de réinsertion et de rééducation que ñu teel di la boddi di la stigmatiser wala di def naka sudul noonu ba nga jaaree fa nag gën a yàqu di wan ni société bi man je n'ai rien alors dans ce cas ñun société bi ñun ñooy responsable loolu moo tax may ñu jéem a xool ci kaam jéem ko suivre parce que loolu am solo la nañ ko jéem a suivre parce que xale bi ma dama jàpp ne dañ ko yàq mais nañ ko suivre xool moom ban pathologie mentale la am lan moo ko tax mu ngi koy xiir ci lii te ñu sóoraale ni am na papaam am na yaayam te ñoom jamono ju ñu nekk nii li ñuy dundu je sais que na parce que am sa doom chaque jour ñu koy dégg ci presse bi lu metti la te loolu nag dafa war dafa jekkul te nag booñ delloo ci loolu yëpp y'a ce kon appelle la présomption d'innocence ba tey jii neewuñ moo def neewuñ def na pourquoi ñuy taxaw di jël di fouler au pied ces principes là c'est très important dans la vie de notre république dans la vie de notre droit dans la défence de nos citoyens loolu tamit nañ ci war a bàyyi xel moom ci dossier bi nga xam ni moom la amee woon fii ci bi fii te ñu def enquête bi enquête bi pareegul ñu ngi koy topp wàllu sàcc bu amoon fii ci Dakar mu amoon ñu jàpp ne dafa am ñeen ñu si àndaloon bëgguma ñëw nag sur le fond du dossier parce que secret de l'instruction dafa am waaye enquête boobu jeexagul te ëllëg ñu bari dinañ am surprise ci degré d'implication am ndax moo def wala deful mais loolu maa ngi bàyyi ba enquête bi jeex incha allah ba ma laajatee question boobu dinaa am tontu yu ma leen jox. déjeu mystique bi soppale ko loolu je n'entends par la voie de presse mais loolu yëpp góobu ci aw ma si sori. nit kuy soppali ko amul fenn nañ bàyyi li ñuy wax su ma taxawee ne mystique am na c'est parce que damay jéem a dëggal ni kon jinne la du jinne nit njaay la doomu aadama la te bu ñu defee vérification dañu xam ne kii du soppali jinne voilà Pape Ndiaye. waaw gis ngeen réaction boobu noonu ah euh, kooku ngeen dégg muy wax nag mooy maître Ablaye Tall moom ak maître yi ñooy avocat booy jinne keneen ku ngeen ci dégg ñeneen ñi ngeen ci dégg ñu ciy wax yëpp ci turu dañ kiiwam yëpp duñ ci leen. Mhm. une précision balaa ñuy jàll dégg ngeen li nga xamante indi na ko ci ay réaction li nga xamante moom moo xew ce qui s'est passé dans l'affaire Bodjina yaakaar naa leer na askan wi yëpp xam nañ ko mardi bi passé la rëcc fa li nga xamante moom a xamante ne moom moo doon deuxième personne bi doon jéem a rëcc dañ ko jàpp mu jul dem moom ci boppam moom mu joon dem parce ko facilité mooy bi mu tëbee dafa am benn oto boo xamante ne daf ko doon xaar pour exfiltrer ko balaa gars di am temps wu génn ak yooyu noonu fekk na oto bi dem dans ces circonstances la la la la rëccee alors dimanche bi passé ñuy jot ay information yi ñuy xamal ne dañ ko identifier dañ ko localiser fële nga xamante ne moom mooy Gambie donc incessamment war na retourner fële nga xamante ne moom mooy à son lieu de détention initiale euh, section recherche ñoom ñoo ko war a escorter yóbbuwaat ko foofu nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy moom mooy kiiwam mu mel ni nag évasion njëkkeewul ci Boy Djiné parce que temps yi li ñu koy dégg bëri na trop première précision bi may def mooy évasion ni muy amee ci prison yi noonu lay amee ci day am ci commissariat yi parce que boo jënd mës na évadé wu commissariat central yëbano yoola weesu am également am na yeneen commissariat yi fi nekk yoo xam dégg ngeen fa ay évasion donc ni muy amee ci prison yi noonu lay amee ci commissaria yi noon lay amee ci brigade yi noonu lay amee ci hôpitaux yi détenu feebar na ñu génn ko kaso yóbbu ko hôpital di ko opéré gars yi ba profité benn moment de natation jug dem yoona ñu topp trace su deret bi ba mën ko retrouver donc ni muy amee ci bërëb yooyu tam noonu lay amee ci yeneen ak yeneen ak yeneen ak benn mais peut-être que bu euh, nekk loo xamante ne lu doy waar la ce qui s'est passé dans l'affaire Boy Djiné également dañ il est temps que ñu tamit il faut ñu wax ko dëgg wax ko lu mu war a am droit def ak lu mu warul droit def mais loolu dinañ ci ñëw ci kanam fi nga xamante ne man moom laa bëgg a ñëw mooy def analise ci évasion yu bari yi am situer les responsabilités ñun ñooy responsable ak lan moo koy waral jàngat bu njëkk bi ma ciy wax mooy l' état responsable sur toute la ligne balaa may indexé kenn état du Sénégal laay indexé man parce que lu tax manque d' effectif bu nekk si prison boo jëndee fan la la ci Diourbel quatre gardes pénitentiaires pour surveiller quatre cent cinquante détenus est ce loolu mën na nekk ça pose problème. ci loolu laa bëggoon ñëw sax est amul loo xam ne daf koy neexal euh, pénitentiaires yi pour génn. waaw xam nga loolu tamit également thèse bu ma bu ma yeggee ci logique bi dinaa fa ñëw mhm. alors léegi ma indexé état du Sénégal comme premier responsable parce que manque d'effectif yi dafa am boo demee fële nga xam moom mooy maison d'arrêt et de correction bu Diourbel brigade ba fa nekk quatre quatre gardes pénitentiaires bëgg a quatre cent cinquante détenus mënul bëgg a trois cent cinquante détenus au niveau national y mille je donne les mille gardes pénitentiaires pour surveiller huit muy effectif fu 37 prisons yi nekk Sénégal est-ce que loolu c'est suffisant te léegi boobu noonu les agents yi nekk en mission dañ ci bokk c'est largement insuffisant donc loolu mooy li nga xamante ne moom mooy première raison bi expliquer les évasions massives donc l'État du n'a qu'à prendre ses responsabilités ay solutions la deuxième chose mooy boo demee fa li nga xamante ne moom mooy prison bu Diourbel amul lu ñu tuddee chemin de ronde maanaam néeg yi fi ñuy tëj prisonniers yi ak mur bi nga xam ne moo clôturer prison bi dafa war a am espace parce que espace boobu mooy permettre même détenu bu escalader yi néeg bi ñu ko tëj mu tëb yéeg ci kaw du mun a tëb fële bu amee espace foofu dina ko mën tere mais y' a combien de prison e xam ne amuñu chemin de ronde prison bu Diourbel c' est la même chose prison bu Bakel même chose prison bu Ziguinchor même chose prison bu Tambacounda également même chose donc chemin de ronde boobu c' principe boo xamante ne les normes internationales ñoo ko a am dans toutes les prisons ba pare distancé de il n'y a aucune prison qui norme au Sénégal wala boog ñu ko respecté bëriwuñ boog norme bu dee norme Set Meti moom benn prison respecté wu ko maintenant quant à chemin de ronde yi am na euh, prison yu am am na prison yoo xamante ne donc foofu laay interpellé man responsabilité état du Sénégal l' état est au courant xam nañu problème yi ci am manque d' effectif bi Sénégal fii peut-être yi am yeneen dëkk yi sax da ngay dégg ay évasion massive vingt cinq trente détenus rëccandoo peut-être loolu amagul Sénégal parce que fii ay benn ay ñaar nga rek nga fiy dégg ñu évadé wu mais problème effectif bi tant état du Sénégal réglé ko rëcc yeeg évasion yi du fi mës a jógee donc foofu laay duggee ci li nga xamante ne moom mooy responsabilité état du Sénégal na ñuy évoqué également ñi nga xamante ne ñoom ñooy l'administration pénitentiaire parce que problème bi tamit mooy dañu war a wu xool lan moo tax détenu di rëcc dafa nañ ko jàngat ci jotaay yi la weesu li leen ciy poussé du lenn lu bu yàgg bi ñu leen di téye te duñ leen jugé ak li nga xamante ni moom mooy surpeuplement kaso yu fees yi nga xamante ne waxatuñ sax léegi paquetage mais da ngay taxaw ba bët set looloo fi am alors euh, su ko defee kon loolu dafa nekk ci li nga xam dafa bokk ci liy poussé détenu yi ñuy kii longue détention ak surpeuplement kaso yu fees yi léegi lan mooy ci solution ñun ñooy responsabilité kaso yu fees yi ñun ñoo am prérogative man daa de dépôt donc xam nañ bu baax a baax qui sont les responsables léegi nag li ciy jaadu mooy les directeurs de prison ñoom ñoo war a jël seen responsabilité parce que par exemple si je prends l' de la prison de Rebeuss nga xam ni capacité d'accueil bi ñi naan ñi naan huit cent ñi naan état bi bu lay jox budget du xool en fonction de nombre de détenus bi fa nekk day xool li capacité d'accueil bi li mu war a jël li mu war a jël loolu la lay jox donc leneen li ci dolli ko yéen a débrouiller pour mën a dundal ñooñu les directeurs de prison n'ont qu'à prendre leur responsabilité ku ci atteindre sa capacité d'accueil bu la juge d'instruction wala procureur décerné mandat bi nga ne ko atteindre naa sama capacité d'accueil les 37 directeurs de prison du Sénégal bu ñu ci loolu état bi mënul sanctionner mënul nekk les affectations à caractère punitif mënul leen dalandoo ñoom ñëpp donc ñoom également côté boobu également am na ci rôle boo xam ne askan wi loolu également tamit nekk na leneen lu bàyyi xel ak tamit beneen aspect bu ñu war a bàyyi xel parce que bu euh, ñi nga xamante évasion yi am les gardes bu leen neexoon du am. Mm-hmm. ku ci nar a évadé wu la tirer parti boo xam ne du la rey mais dina la empêcher nga def parce que buñ ko defee dañ leen di dem tëj summi leen décerner le de dépôt tëj leen kaso looloo fi am. Mm-hmm. donc l' emprisonnement massif des hommes de tenue waxoon naa ko ci benn jotaay ça pose problème. tax na takk der yi policiers yi ak gendarmerie yi mun defatuñu de sécurité ni mu waree parce que koo ci laal dañ lay dem tëj wax euh, agresseur bi génn yore paaka yore jaasi kooku dafa am intention rey nit bu rey nit moo ko tey loi bi dafa war a dal ci kawam mais takk der bi génn këram amul intention rey nit dans le cadre service la ko li ko dalee di dalee donc est-ce que ñoom ñaar war nañu yem traitement c'est une interrogation boo xamante ni euh, man man man man man man maa ngi koy maa ngi koy maa koy maa koy posé donc loolu yëpp ay mbir la yoo xamante dafa am dañ la faciliter nga dem dans l'affaire Boy Djiné am na ñoo xamante ne dañ ne non Boy Djiné mënul demee noonu rek dëcc dafa fay xaalis ñu bàyyi ko mu dem donc loolu ay rumeur la yoo xamante ni mu ngi circuler mais toujours est-il man lu may wax dama ciy am preuve mënuma avancer ci loo xamante ne awma ci preuve est-ce que na xaalis wala fayul xaalis am na enquête boo xamante ne commissariat urbain bu Diourbel mi ngi koy mëne dina euh, dina indi leeral bi ci war yépp pour wax ki kan mooy responsable kan moo dul responsable démb si guddi rek jot nañu information bu ñuy xamal ne garde pénitentiaire yi nekkoon foofu ñëpp affecté nañ leen yóbbu nañ leen yeneen prison donc mën nañ jàpp ne kon euh, enquête bi nga xam ne police mi ngi koy def ci wàllu police bu Diourbel mi ngi koy def commencé na mi ngi mi ngi commencé génne ay résultats parce que bu ñu demee ba affecté agents yi nga xamante moom mooy euh, moom mooy évasion yi d'accord benn aspect dañuy gis que ni euh, boo ne booy jënd ñu ne day soppaleeku aspect mystique yooyu est loolu tax tamit ñu koy bàyyi muy muy rëcc parce que est dañ ko ñeme tamit wàllum day soppaliku xaw ma lan lan la ñuy wax. day soppaliku barak. waaw benn agent bi fekkee loolu moo ci mën a seede. xam nga man mënuma toog fii di seede ne kii diw soppaliku wala déet la deuxième chose mooy. d'une journaliste wala boog d'une manière générale intellectuelle booy def analyse tu peux pas fonder ça sur des éléments des arguments mystiques ay arguments scientifiques démarche scientifique nga mën a adopté pour def analyse mais mënuñ ko reposer ci li nga xamante ne moom mooy thèse mystique maintenant boobu noonu agent yi fekkee soppaleku bi ñooñu ñoo mën a ñëw ñoom ñoo ci mën a seere ñoom ñoo ci mën a wax mais man quant à affaire de boobu du ko thèse mystique man dama koy bu may analyse dama koy écarter d'office parce que dafa am ay raisons yu valable yoo xam ne ñoo fi nekk di expliquer évasion massive yi nga xam ne moom ci prison yi manque d'effectif bi ci la bokk ak euh, leen te parfois ñu tamit li nga xamante ne moom mooy surpeuplement bi tappaloo beeg euh, bi nekk ci biir prison yi lekk guban gi également bi nga xamante ni moom moo nekk ci kaso yi loolu yëpp tamit na ay problèmes yoo xamante ne daf fi nekk peut-être loolu bokk na ci ay raisons yi nga xamante ne euh, daf leen di pousser ñu évadé mais en tout état de cause. na fi. li nekk sama sama inquiétude instant bi mooy. Euh, ñi nga xamante ni ñoo des ci prison yi parce que Sénégal euh, bu kenn évadé woo rek ñoom ñëpp dañuy alarmé wu. xamante ni ñoo fa des seen ay conditions de vie dafay gën a misérable bu fekkente ni dafa dafa metti woon euh, maa ngi dégg ñu naan euh, détenu yi nekk euh, prison bu Diourbel dañ commencé grève de faim parce que depuis Boy Djiné génn ba tey mhm. dañ leen nekk di leen dóor di leen torturer di leen sonal alors maintenant est-ce que benn nit évadé wu rek cela légitimise le fait que ñuy ñuy maltraité ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa des waaw xam nga moom Sénégal dañu baaxoo loolu ah bu benn mbir xewee benn prison rek vous vous rappelez rëbës bi mu fi loolu xewee tere woon lekk gi dugg ak visite yeeg lépp la ñu suspendroon euh, jusqu'à nouvel ordre ni ñu ko nemmee ko woon foofu noonu la ko nemmee ko également barki que droit de visite loi bi moo ko institué également lekk bi nga xamante ne peut-être mën nañ mën nañ mën nañ ko mais nag administra may leeral ne administration pénitentiaire loi bi may nañ leen ñu jël ci euh, restreindre ko jël ci ay mesures précautions yoo xam dañ koy gën a encadrer pour éviter li nga xamante moom mooy insécurité wala infiltration wala yeneen ak yeneen ak meneen mais ce qui est bi mënul accepter mooy li yoon mënul nangu ak tax li xel mënul nangu mooy ñu jël carrément def interdiction total de visite nemmeekoon nañ ko tout récemment fii prison jigéen ñi nekk Liberté 6 fii parce que dafa amoon benn mouvement incident bu ndaw bu fa am ñu suspendre systématiquement visite yi ak li nga xamante ne moom mooy interdit lekk yi du du euh, dugg même bu fekkente ni par mesure de sécurité moo koy def tamit également loo xamante ne nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax parce que par exemple nit ñi euh, nga xamante ne moom mooy euh, pour ñëw seeti seen mbokk yi nga xamante ñoom la ñu ñoom la ñu tëj fële nga xamante ne moom mooy prison day jaaroo ñu bàyyi xel mais ma leen leneen li ma la ciy dolli tamit mu également mooy Euh, te dama ci profité di ci attirer attention ñi nga xamante ne ñoom ñooy détenu yi ak tamit booy jinne moom ci boppam nga xamante ne moom mooy ndey mbill gi euh, leeral bi njëkk mooy détention délit la euh, li nga xam ne mooy évasion loi bi daf koy tere mhm. boo ko defee loi boo ñëwee loi bi mën na dal sa kaw donc nañ koy éviter day gën a indil problème détenu yi ñu ngi leen di waaw xam nga fii Sénégal dañuy appliquer li ñu tuddee principe de la confusion des peines bi ñu tëj la 5 ans bii 7 ans bii 3 ans xam nga duñu la ko additionné comme États-Unis mais dañuy xool bi ci gën a kawe mais bu dee évasion daf ci bokk yëpp ngay tëdd a jóg li tax ñu tëj la la ma ciy dolli boo jine li koy jiñ mooy vol qualifié am na ñeneen ñi ñuy jiñ lu gën a garaaw ñu nekk ci prison bi te jéemuñu évadé wu ñu ngi toog gëm yàlla muñ toog donc man dama jàpp ni évasion du du du du du mooy solution boo nekkee ci prison boo ko fa jógee te tey booy jënd ngay dégg da dégg ay Boy Ndiaye da ngay dégg ay Bouba Chinois da ngay dégg ay Ino ay ñoom Alex ngay dégg. gën a garaaw ñoo nekk ci prison yi. Mm-hmm. xam nga booy jëndee ak luñ ko mënti jiiñ rey nit bokk ci. Mm-hmm. ñoom Alex ak Ino lu coono bëri na trop si tey boo boo ne woon yan bandi nga bandi yu gën a mag Sénégal ay Ino lañ lay tuddal alors que nekkuñu ko. ak luñ leen mënti woon mm-hmm. a ngi ci prison yi jël nit daggati ko def ko ci saako dugal ci oto di dem bëreet ji toq ci tali bi police yi topp tracé ba jàpp ko ñi ko defee ngi rëbës ji di ma dégg jigéen gu ëmb ba diis nga jam ko rey yaay ji rey doom ji ñi ki ko defee ngi ci prison yi toog donc loolu moo gën a grave foofu ñii ñuy jiñ ay bëj ji nag ñeneen ak ñeneen te ñi ngi toog di xaar seen atte gëm yàlla di xaar li nga xamante ne moom mooy seen issue xam fan la ñuy donc yooyu yëpp day jaadu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax xam ni évasion délit la loi bi koy tere am na ay risques yoo xamante ni moom moo ci nekk boo nekkee benn prison kontaanoo ci am na yeneen moyens bi may nga mun fa jóge lu ngay jéem est-ce que c'est pas lié depuis bi ngay wax si euh, longue détention yi bi nga ciy wax boobu ba léegi ak bi ngay wax ci euh, lekk bi ñu leen di jox est-ce que gis nga ci changement diggante bi nga ciy wax. Mhm. ba léegi est-ce que yaa ngi gis ñu euh, ngi ciy def évolution di commencer di ci def ay démarches ak yooyu. waaw certes nag il faut reconnaître que euh, ministère de la justice ñu ngi def ay efforts pour jëli fi problème yi. mais dafa fekk ne rek effort bi dafa minime par rapport ak li des. li ñu def jot a def dafa néew par rapport ak li des li des dafa bëri lool lool lool lool xam nga léegi rek maa ngi lay wax ni cour d'assises session chambre criminelle bi ci di tijji Dakar. ñi ñu daan jugé bu bëri woon bu bëri du dépassé sax cinquante personnes. mais gis nañu ne session bi indi nañ quatre vingt quinze personnes pour juger leen. donc loolu mën nañ jàpp ne amélioration la. région de Thiès également programmé nañ session donc loolu peut-être mën nañ jàpp ne ak dans le court terme. Euh, mën na constituer solution mais dans le long terme du doon solution parce que réforme bi ñu indi tamit y a des failles dem rek ci ouverture chambre criminelle procureur bi mu jëlee la parole def na remarqué observation yi chambre criminelle dañu war a def de telle sorte que mu permanente comme ni ñuy jugé ni ñuy def escroquerie rek litige foncier yi ni ñu leen di jugé tous les jours pourquoi pas ñu ñuy jugé pour crime ñu leen di ñu ñu organiser ko de manière permanente à chaque fois muy am jusqu'à ce que ñu épuiser dossiers yi nekk en instance yëpp bu leen neexee nag boobaa ñu dellu ci seen tous les quatre mois te parfois sax tous les quatre mois duñ ko respecté en tout cas Dakar fii respecté wuñ ko région de Thiès respecté parce que euh, nga xamante ni euh, euh, nekk ci réew mi donc daal loolu mooy daal li nga xam naa balaa ñuy te ci dossier du jour bu dee euh, suñu invité am na lu nga xamante ne euh, bëgg na àddu ci kàddu yi ni mel. ok je je pense que moom dinaa que man def naa prison. yoon si affaire les jeunes de Colobane bi jógee. def naa ko une semaine. maa ñoom dañuy seetaan Walf lu bari quoi. Mhm. mais je pense que problème bi problème mu détenu euh, d' abord mooy xam nga xam nga bu ñu la téye si benn délit dossier daa am fu mu jaar.

ni ñu nekkee parce que tamit détenu ak lu mu mënti mel ak lu nit yaayam nit dafa nekk koo xam ne yàlla da ko nattu mu nekk koo xam ne day defay erreur yu doy waar des fois mu def mat bu yéeme ba ñëpp kontaan des mu def connerie bu rëy yàlla moo bindee noonu nit mais je pense que dafa am loo xam ni wareef la ku nekk sa wareef da nga ko a def par rapport ak li nga xam moom lañ tegee fi nga nekk mais boo demee rëbës man li ma gis rëbës amul fenn ci àdduna ñoom dañ ne maison de correction mais non torture moo am rëbës tëdd bi lekk bi naan bi douche bi dañuy ran da ngay xëy suba teel taxaw di ran chambre bu tuuti bu toll ni fii nii ñu def plus de deux cent trois cent cinquante personnes mais loolu dafa metti te boo ko dundul mënoo si wax donc je pense que am na am na loo xamante ni balaa ñuy wax ay waxu pénitence dañuy gis ay ay yoo xamante ni gars yi ñu ngi jox weccit xam nga ñu nekk booy jelmaani je veux ñu nekk booy prisonnier yi cest à donc donc état lu m war a def mooy mooy mu xool mu jël rëbës bii la ñu war a jëlee fii déjà prison warul nekk ci biir ville xam nga prison warul nekk si biir ville nombre de personnes nekk may jàpp ñaa jóngi fenn àll baa ngi fi nañ dem yi si ay conditions yoo xam am boo xëyee nga am looy liggéey nga am métier def noonu la ñuy dëkk mais ñu ngi fi lim yaa ngi wax ay détenu kii ay ino ay kii c'est-à-dire am buzz ci jeel bi journaliste ñoo leen ko may te sàcc yi la sàcc yi ñoo am buzz ci jeel bi te il faut ñu expliquer aussi ñi saa ne leen sàcc baaxul sàcc baaxul sàcc du ndam léegi ay booy jinne booy malaaka booy lawbe c'est problème bi du loolu problème mooy déjà waruñu sax taxaw di médiatiser benn gàncax bu nekk ci kaso bi di sàcc di si de média bi tamit am na ci part responsabilité bu rëy ku dal ci état bi ba pare wëlbati ku dal ci média bi parce que ñaari pouvoir yooyu ñoo fi ah. mm-hmm. te ñooy perturber sénégalais yi ci ay détails donc état bi li koy interpellé mooy mu xool fexe naka lañ def ba mën def ci condition yu nite ñuy lu baax gis naa nit kuy piqué ay crise yi kaso bi ki mi kanam bi yëpp toj ko bu amul xaalis. c'est des xam ne da ngay ree ba tas ko ah, vraiment man daal loolu laa gisee. mu nekk euh, ne état sax dama xanaa ma feelu ko ci wet bi. Mhm. ñu ne par exemple ligue yi bëri nañu. ligue te ci mhm. yeneen cause rek lañ leen dégg duñ leen dégg. Mhm. Euh, ci cause yu jëm ci yu ni mel nii. pourtant sax naam sax dañ ciy intervenir parfois mais remarque bi mu def dafa am solo ah, mooy par rapport ak juge d'instruction te là je vais me permettre de défendre les juges d'instruction mu am ci juge d'instruction doy. région de Dakar ak volume contentieux bi ni mu amee solo il n'y a que dix juges d'instruction mm-hmm. te juge d'instruction boo ci dem en moyenne dina traiter deux cents dossiers imaginez benn juge deux cents dossiers boo xam ne da ko war a traiter ci at ci at boo ci génnee li nga xamante moom mooy samedi ak ak jour férié yooyu ñaata jour ngay am pour mën a traiter say dossiers donc état bi moo war a yokk juge d'instruction yi muy benn deuxièmement te dossier bu ci nekk mën na impliquer ay enquêtes yu compliquées yoo xamante ne da ngay ordonner ay expertise war a def euh, li nga xamante moom mooy complément d'enquête ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc loolu également bokk na ci liy favoriser ñi ñu tey lu yàgg il faut que état bi yokk seen nombre fii Dakar parce que volume contentieux bi région de Dakar la gën a ëppee par rapport yeneen régions yi loolu également buñ ci jëlee buñ ci ci buñ ci ci buñ ci euh, indi euh, dindi jafe-jafe bëri yi nga xamante ne dañ fi nekk mais également li mu wax tam ma ci confirmé boo jinne ñu def lu gën a garaaw li li ñu ngi ci kaso bi te ji ñu ngi li nga xamante ne moom mooy seen détention ah. parce que natt boo xamante ni yàlla yàlla moo leen ko teg te jombul kenn euh, su ko defee kon loolu mooy observation yi nga xamante ni nañ ko ci bu dee am beneen remarque bu ngeen ci euh, indi laata may tëjee li nga xamante ni moom mooy information du jour ah dossier Selbé Ndom ak euh, Aziz Ndiaye war na yegg fa li nga xamante ni moom mooy moom mooy tribunal bu Ndakaaru waaye tamit Bouba Ndour contre Dakar

échec fii parce que boo xoolee remarque bi nga xam ne ñëpp def nañ ko mooy journaux yëpp Dakar lañ nekk pourquoi yeneen régions yi mënuñu réussir bati tabax li nga xamante moom mooy presse régionale euh, dossier boobu la Walf Quotidien def tey nii nii ko wut rek di ko di ko di ko mën a am waaw ñi nga xamante ñoom ñooy suñu correspondant yi ñu nekkal ci région yi participer nañ ci boo demee fële nga xamante moom mooy Thiès yàlla Gabriel Barbier ma nga fa ak tamit ñu ànd ceeg nga xamante ne moom mooy Fatkine Sène di chef desk culture donc dossier bi mi ngi ci Walf Quotidien 200 francs lay jar mi ngi sur le marché